mbokk yi le 25 décembre ñu jëm arène nationale jëli ji cadeau de Noël bi càmm production moo fa woote Baba Jaw jiitu ko sept grands combats ci benn ngoon déglul ma wax la ñi mu boole Jackson Junior la jël daal di koy jox ñàkk jëriñ général Malika mel ni mi ak Buur dafa leer Alaaji Gaynde Dudu Saane booy mbuur Fourière Boy Jules Kaw Cissé numéro 2 Fadam Junior Laurent Ndiago Alliance Balde Boussite Aliou Fatfat Lakantaan Caatu Faas 1 giga dal bonde mbokk yi lamb ji nag ngeen mun koo am en live

parce que Tafaleel gis nañu mu bëreeg ki nga mooy Boy Niang bëreeg Fils de Balla bëreeg Gamou Gueye bëreeg ndaanaan yooyu yëpp tey nga jël ko sa dem Dakar bëreeg Mbaye Balla daan ko jël boo xam ne ba léegi Dakar dañ koy waxtaane tey nga war a duggaat Dakar sa deuxième combat war a bëre arène nationale yooyu jii nii nan nga ko waajalee waaw avant tout ginnaaw bi sant yàlla jël si yeneen di sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ Cheikh Modou Fall Fall di sant waa koñ bi maire paye mag ak ndaw ñëpp maa leen sant di leen baal ak bu baax a baax di sant sama tëdd bi sama xarit sama papa sama lépp alaaji Ousseynou Diouf di sant sama bàjjen Rokhaya di sant sama staff ñoom Baye Daaw xam nga Ousseynou Mame Ndour Pape Diouf boobu ma kenn Baye Diagne xam nga gars yi boobu ma kenn maa ngi sant ñëpp xam nga di sant tout temps yëpp bu baax a baax a baax di sant ñoom ñii laa gars yi maa leen sant bu baax alaaji nga jëm bis bu am solo muy le 25 décembre tey nga am bis def sa open presse waa tax yow gépp génn ànd ak yow waa Thiès gépp ànd ak yow loolu la lay def waaw loolu li ma def si man ndam yokk ma jëm parce que damaa leer nekk na Dakar di bëre tey jii kees bu doon Dakar kon kenn waxutu ko kon maa ngi ci kaw ñaata combat laa bëri kees bu mu ñëw fexe ba génn dem pour lan parce que suñu morom ñoo nekk Dakar di rayante bu dee bëccëg su fa ngoon di am li ñuy am président fi treize combats laa bëre booy ligne bi day Ada Fass na keneen mu fi bëre ay quatre combats cinq combats génn pourquoi a dugg Ndakaaru wane ko bu mel ni Tapha Leer Alaaji ay supporter am di xaar sa diggante ak Tapha Leer. waaw parce que boo dee xool ay jamono ci ginnaaw. Ousseynou. booy dañ maa yónni woon. micro bi dañ ma sama diggante Ousmane Jàng Jàng ma ne ko yaa ko for ma ne foroo ma xam ne moo ma ko ma ne for yaa ko baax ma baal ma dem yëkki leneen li xam nga kon ma ko gisee naa ko delloo booy yàlla dogal na nag maa maa ngi rëbb mais yaakaar naa bi ma tëddee am na lu ma xaw a génn li ma doon daane ma le 25 décembre boo demee Arène Nationale la nga doon la nga doon di nga gis ba ñëw delloo ko gone yi bëri suuf moo moo tax nga xam day gën a neex bañ fa laa koy jeexee laa ñu doo koy jeexee parce que booy xool yaa gën a nu mu toll te yaakaar naa su ma duggee arène nationale da koy jeexam bu suuf du fañ ñu noo koy jeexee noo koy jeexee moom la ñëpp ay acier waaw waaw acier

rawatina ak benn benn kii bu ñu tuddee nga xamante ne mooy Doudou Ndiaye pour que mu mel ni xëy na def du ko sant ko gërëm parce que lii rek la nit ñi koy tey booy xool day jàppal wala day doom am bés nga jàpp ci nit ñi mën a jàppale jàppale jàpp jàppale nit ñi moom weesu na sax Sénégal jéggi na ko rek wala mu rëcc waaye dama ñëw ci li nga xamante ne moom la ñëpp di xaar ñëpp ne nañ dafa euh, leer mbir mi moo xamante ne moo la ëpp moo la sut moo la gën a yàgg ba pare moo la gën a diis ba pare nga ne yow da nga koy jël sa digganteeg moom combat boobu est ce que xam nga ni Tapha Leer moom nekk na mbir moo xam day dóor yow donte kees xam nga ni am nga fi takkusaan bu nekk ban moo tax nga jóge ci defe ba pare jël ki nga xamante ne moom mooy takk moo ko waaye bàyyi waaye parce que dama mer waa am lu ma métti li ma métti leen dama laa jooy muy sama diggante Ousmane Gana Diagne mais xëy na yàlla mooy def xool lu ko neex mu def du ko jël ci ñoom kon damay sant yàlla baax parce que bi loolu amee ñëwaat naa rek di sama bopp toog xoolaat sama entourage xool li ma manqué woon xam nga ma xam lépp xam nga gars yi waxtaan seen biir naa ko dëgg la Tapha Leer ndaanaan laam parce que daan na fi bu ne mais lu ma leer ba leer ñi ma bëreel ah ñoo gën a miti gën a miti parce que bëri na faal gàtt gaal ñu bëri ñu lay saar ñu doon faal gàtt gaal day bu mu tëdd gis ngeen ne mu demee buñ lim noonu nga parce que lii nii si kanam xam nga baal ba si kanam tuuti sax le 25 nga am ay Leer daal gis américain bi ñëw di ma eh man ko waaw man ma damaa tàppal di man ko damaa xel dee. jënd jënd jënd jënd jënd jënd. kon tax combat boobu da ngay indi kee wala dafa am lu sa xel def ngay indi kee indi bëri. waaw parce que euh, xam nga du moo jëm jamono ji di toll dafa changé parce que bu dee gis nga àdduna mu gëddee parce que lépp doo gis ci xel mu seen la waxtaan ko jubóo rek te dinaa jël li ma yónni ma indi ko jox ko booy yi mais parce que lépp loo gisee xam nga alaaj idée de moomu am na instant am na lépp mu wax loolu laay defee mais bu as bi siflee génn suñu diggante ma Tapha Leer Tapha Leer su ma ko xoolee du ko xool parce que alxuraan bu neexee yàlla su ma ko xoolee du ma xool. Tapha Leer bu taxawee Tapha mët une minute yàlla maa ngi gën a féete xale maa ko dàq bëre maa ko dàq xeex foofu dee bëri bëri li nga wax maa ko dàq ci kàttanu yàlla la 25 décembre Tapha Leer bu jëlee ko kon dinaa ko attaqué su ma ko dóoree dina tëdd. côté mobilisation bi fan nga ci toll Alaaji Dakar sori na de. waaw Dakar sori na moo tax gis nga parce que yàlla dogal na sama loxo jotul sama ginnaaw comme sama papa bi mu ngi Ousseynou Diouf au moins sama Macky Sall mooy sama ministre mooy sama lépp kon nag maa ngi koy gis dafay jàpp man sama lépp daanaka sotti naa maanaam maanaam moom bu question ay xanaa ay parmi wala politique balaa nga doon xamoon tey politique yaa ngi fii du ma bàyyi ma ne moom ba keroog day gudd fët du ma bàyyi parce que yonent yàlla Muhammad du ma bàyyi. parce que gis naa ne tey jii parce que alxuraan kan bi doon président te dina ko doon si kàttanu yàlla. parce que lii nii may jëli drapeau la des fois te moom mi daa ko war a indi. le 25 moom daa ko war a indi te dama koy indi jox ko si kàttanu yàlla. sama dernière question mooy li nga xamante ne mooy champion Thiès yëpp tey dañoo war a nekk Saalum ci mel ni Thiès ay Saal ay Nour Anta ñëpp ñi nga xamante ne mooy ñoom ñoo ay mbër ñoom la ñu jàppale loolu action boobu dama ko dundee xam nga dañuy def des drapeaux jox na ko kenn moo parce que boo dee xool dama naan ci benn côté dañu doon xoj suñu biir ñiy rayante ñi bëree xam nga wala mbër bi suñu biir comprendre nga xëy na tey sport moo demee noonu nga bëgg ci nekk sa tur am fu mu toll fii nga génn comprendre nga parce que sama tur man fi mu yegg sax jëmm ji yegg ko mais damay sant yàlla bu baax comprendre nga lii ni man de mais yàlla suñu borom la sama liggéey day sama mais instant là ci kàttan yàlla dañ gis résultat léegi xam nga mais li ma ko gisee tey maanaam mooy kees ñun dañoo war a booloo doon benn parce que ñun benn traite bi la bu des waa lañ lan mooy lan ala ngeen am na combat wala ay booy jamaa toog fee wala saan toog fee wala keneen toog fee non non il faut ñu ñëw mobiliser ànd ak laaj génne comprendre nga ñu gunge ma su ma gis damay xiiru heure bu ma gëstoo damay xiiru parce que daa am lu ma soxla parce am lu ma gis sama ginnaaw kon boo dee saa yi faara bi yaa ma koy yaakaar. sa kàddu yu damay santaat waa koñ bu baax a baax a baax a baax damay sant waa koñ bu baax a baax comprendre nga di sant Dóor Thiam bu baax jaar ba ay rakalaana comprendre nga Ahmed xam nga su ma limee damay juum comprendre nga xam nga ay Omar Sidibé ñoom ci des ay waa sama doomu ndey booy boobu ma kenn booy yi tamit tout temps ay man booy yi ñu ngi wut ak ak Alxuraan kari booy dana am boo xoolee lii boo ko xoolee am na lii lii yombul quoi xam nga bu ma joxoon leen tamit xam nga sama village bi waa ne ma koy Seydou Ndoye Baye Daaw Boy Baye Daaw barki alquran lamb ji lu mu def instant bi man comme sax ñu ma ko war a wax. billaay wallaay Baye Daaw moo tax may gën a raayante dinaa gën a raayante ngir moom di sant ay Ndiaga Saalum Ba xam nga ay Lamine kay ku ma leen sant di sant bu baax xam nga ay Idil Ndiaye xam nga mais lépp maa ngi sant bu baax. Ousmane Ndiaye di ko sant bu baax di ko ñaanal yàlla xam nga mu bokk ba si kanam ñoom Pape Bara Assane Gueye Fallou xam nga. ñoom ñëpp dama leen sant ay mbokk yi le 25 ñu jëm arène nationale jëli ji cadeau de Noël bi Thiam production moo fa woote Baba Diaw jiitu ko sept grands combats ci benn ngoon déglul ma wax la ñi mu boole Jackson Junior la jël daal di koy jox ñàkk jariñ général Malika mel ni mi ak Buur Sine dafa leer Alaaji Gaynde Dudu Saane booy mbuur Fourrière Boy June Kaw Cissé numéro 2 Fadam Junior Laurent Ndiago Alliance Baldé Bou Siteu Aliou Fat Fat Lakantaan Thiatou Fass 1 giga dal bonne mbokk yi lamb ji nag ngeen mun koo am en live pay per view ci seen affiche point pour yéen ñi nga xamante ne ni yéen a nekk Sénégal 1500 francs dong lay jar mun ngeen ko jëndee par Wave Orange Money wala Free Money waa diaspora bi 5 seen affiche point com le meilleur en pay view au Sénégal